<laughs> ñooñu yërëm boo ko amee da ngay noppaliku moo daa ko duul daa duul ba baayam dee daa duul ba yaayam dee su boo demoon tey ci bàmmeelu baayam ak yaayam sulli leen dañ naan sañu doom lañ jur mu duul ba ñu faatu ñun ñëpp duulu yërëmee ñu rey yaayam tension ci ci duulu yërëm ñu mu seetaan rek xëm foo la jaaree dugg comment ba léegi génnul noonu la faatoo barke alxuraan yërëm a daa ko duul Afrique sowu jant fen lum la wax fen la lum la wax fen la lum la wax fen messe la nag messe dara boo ko xamee buy wax day dal nag voilà waaw <laughs> mais <laughs> waaw sonko so sonko moo laa sonko day diw day day day capp kaani ah waaw day capp kaani ah, di diw limon <laughs> di tëbb kaani di diw limon loolu la di dagg carotte di dagg ñambi ah xaw ma daa daa Sonko dafa bëgg saf dafa bëgg saf donc nit moo laa nit mënul capp kaani di si di paccal limon ah di dagg ci basante rek kii bi te doo bëgg affaire bi dama mënul ne ah d'accord waaw dinaa la jox dossier bi nag dossier yëpp laa la jox bi ñu jàppee Sonko mu ne ko mais yow euh, grand li nga bind sa livre bi yow da nga ci am preuve <laughs> maa ngi teg preuve yi lar nañu ma la lan nga yow yow yow kenn waxatu ko ci oto bi lañ ko jàpp mu nekk futti xale bi ci corniche ba di raay mbelle di raay mbelle policiers yi dañoo ñëw rek dóor benn euh, lu tëdd torche na ko la oh, oh, oh, ma ne ko waaw kon ñu nekk ci biir oto foofu lëndëm nga dóori torche da ngay gis ñooñu li ñuy def <laughs> ci saa sa ma ne mais kii mun na fen wala man la yem maa ngi koy déglu rek man nag ab sama teeyaay moom moom yooyu muy def noonu ñeneen la koy def ma ne ah yor naa ko après torse la ne torse nee na ci corniche ba lañ leen torse police yi gendarme sax waaw gendarme gendarme yee torse gendarme yee leen torse <laughs> torse ñu gis Sonko mu ne ñu gis Sonko mu muy raay mbelle euh, euh, faatu xaw ma lan euh, Gambien ah ma ne ah d'accord yaa ngi ko waaye moom <laughs> xam nga nan lañ def. ñoom dañ a benn problème dañoo ñëw fëgg Sonko ubbi ñu ne leen lan ngeen fi def Sonko ni dañuy jël air moom mooy wax de mooy ko mu ne waaw mooy dañuy jël air nee na gendarme ne leen mais position bi ma leen fekk nag <laughs> waaw Sonko ne ko non ñu ci position on était là entre deux xawma la euh, deux un couple bla bla mooy dul de <laughs> ma ne ko ah ma ne ko léegi mu ne mooy gendarme ne jox ma sa carte Sonko génn carte d'identité jox gendarme bi mu ne ndaw si waaye ndaw si jël carte jox mais man lu ma ci jaaxal mooy <laughs> nee na moom yor na procès verbal boobu bi nga xam ne ñoom gendarme yi ñëw fekk Sonko ci oto ba ak ak journaliste boobu noonu euh, xaw ma faatu lan Gambien bi nee na moom procès ak seen photocopie mu ne daf may jox de mu ne danaa la jox procès verbal gendarmerie bi. ñu ci wax yëpp enquête bi lañ ca wax yooyu ak seen photocopie carte d'identité bu ma ko gisee Michael Jackson doo ko gis <laughs> man ak yërëm nag tous les jours ma topp ko rek doo yërëm di ma jox affaire yooyu la maa ngi ñëw <laughs> je te rappelle je te rappelle <laughs> ba nii bu ma jotee ci loolu gendarme yërim boo mën a duul gis nga koy duul ba toog ba jàkkaarloo yërim di ko lem ba mu roo ba xam ni yërim sa baay la ci duul kuy duul ba jàkkaarloo yërim di nga xam ni jooy da ngay tàmbalee da jàng duul mais du duuloo ko parce que alxuraan dafa tàng dafa day ba ñàkk booy musuma gis ku mën a duul ni yërim dafa ak sang froid day duul day duul dalay day duul di la lekk kuy duul ba toog ak yërim di ko lem ba mu roo <laughs> ba mu roo nga xoolal nga dëgëñ xool xam ni kii sa baay la ci duul mooy champ moo jël championnat duul bu amoon Sénégal kenn du ko laal yëre moo jël lépp lépp lu ma dambal di mën a duul yëpp bu ñëwee ci yërim day lem day lem da koy lem mu xam ne yërim championnat duul bu am Afrique soo jant jël ko toog ba léegi nag nekk ci média yi rek di wër di duul nii de ba nii ba sànq ci suba mu ko jox loolu parce que xamoon naa ne duul yu doy xepp la musuma woo gëm nag xamul naa ne day duul di duul lu Macky Sall lañ jàpp Macky Sall mu dem jël turu Macky Sall effacé def <laughs> def def fa Sonko <laughs> encaissé ay millions dem toog yi <laughs> laaj la ko lu muy liggéey dem leen laaj ko lu muy liggéey est-ce que xam nga ne amul liggéey amul liggéey de dóor kese ci la amee kër tubaabu jàllaaw ci la ci la ci la Thiès ca lay fépp terrain noonu li xëyut gont xëyut soo ko woo ci télé mu ñëw nag xëyut gont xëyut gontu non yërim amul liggéey lu liggéey yërim nekk du du laaliste de bàyyi daw bu yàgg yërim ay garaam boobu lay sol di wër di fen di dóor kese nax xale yi tëddee leen fen leen surtout nag gel yi yu am xaalis moom yooyu lay wër moom moom moom benn suuga daadi la ku mu gis nga yor xaalis jigéen dina la approché ak duulam ba roof la tàngoor ba dugg la kàcc la comme dafa mun a fen te jigéen itam xam nga ñoom seen defaa na bopp yi day xaw a kii bu ñëwee bu la duulee récupérer xaalis ba <laughs> toro xale ba maj def na ko ay xale yoo xam ne ndeysaan doona waar daal mi ngi noonu duur rek la def ñoom ñëpp a waaw voilà donc euh, mingi dal ngeen xamé ko bu lolou euh dama wax tout bala ma dem ci affaire euh, soxna si nga xamni ne Adji affaire yi ko le gouvernement ay ay légaliste lañ ay nit légal lañ a xam droit yo xamni le respecter droit Sonko du non c'est une personne que j'aime beaucoup c'est une personne que je respecte beaucoup ab nit la boo xam ne dafa respecté kàddu dafa fonk kàddu wallaay bu doon Macky sàll moo toog palaasu Sonko gii ay toog palaasu Sonko gii yéey kon tànk dëkk bi réerul ay yuuxu mag tànk déggu leen ko sama xol du sedd billaay dinaa rëkk seen ndigg ndey ba ñuy yuuxu bañ tëj tëj di tëj di tàpp gars yi ministres yi di futti futti taatu nen kooyu nen di la dugal ci kaso yi di leen paquetage dàmbaloo di leen juutal nan garde yi juutal nañ leen ñu juutal ministres yi lok ubbi seen taat yi lokati jàpp seen xuur yi peese bés bés xuur yi ba naan xuur yi si biir xuur yi sax mën nañ mun nañ cee opéré def fa dox bés xuur yi mën a bés boo xam leen seen xuur yéy <laughs> bu ma toogoon foofu parce que alxuraan doo leen ko dollet buñ leen tegaloon alalu askan wi nii ngeen jaakaarloog ñoom doo leen ko laal ma ñàkk sama ndey da ngeen a da ngeen a am wërsëg tombeeg Sonko Jomaay ñu dal tey toppeewuñ gaay yi dàq ñuy reyu ñuy ay waay yàlla bu yàlla ko yàlla def balaa maa dee rek ba dof président benn yoon benn yoon même bu dee un an benn yoon même bu dee un an quoi <laughs> yéen reewu leen sax Sonko Jomaay seen teeyaay seen tekkaay xam la part des choses new ñu fi di règlement de compte new ñu fi ñi jël lepp jaare la yoon justice buñ doon wax ñu def ko une justice indépendante ay ñu tek seeni nit tek lepp dugg ñu ci dara bàyyi gaay yi doxal seen bop ñu tek seen pôle financier etc pour pour ñi xam moy délinquants fiscaux yi délinquants financiers yi délinquants fonciers yi détourneurs de deniers publics yi ñom ñoo fa wara dem pourtant bu ko neexoon <laughs> lépp la roof ci biir lépp tey bu doon Macky Sall moo am opportunité bi ba mu ko amee ñëpp la tëj ci kaso ya kaay kaay rallier la la kaay rallier mbaam rëkk sa ndigg kenn duggagul ci kaso yi kenn Macky cinq mois gaa yi nga commencé woon di dugg ci kaso ya Ablaye Wade cinq mois gars yi nga commencé woon di dugg kaso directeur douane ba ca kaso ba directeur chemin de fer Mbaye Diouf ca kaso ba mais directeur gars yëpp mi ngi leen doon dóor ci kaso ci kaso ya ñoom ñëpp Sonko rek moo fi ñëw boobu ba léegi ak Diomaye sa fait presque cinq mois ba jàpp six mois kenn laalaguñ ci kenn ñoom ñëpp ngi jaab njaaba njàlle di dem di ñëw yor seen i kii yóbbu seen i jabar yóbbu ñu ñu ne taxaw leen en attendant am nañu daw mais sa va bu commencé am nu daw doo tëj buntu ah doo tëj buntu doo yokk sécurité am nañu daw nga ñu commencé di di cappa cappa da ngeen dem justice di ngeen dem justice wuy ji justice voilà loolu laa leen di donc bu soo loolu lépp li nga xam ne dafa am rapport par rapport ak li nga xam ni moom mooy lu ñu voté assemblée muy amnistie bi Sonko Jomaay violé wuñ ba léegi loi amnistie bii nii laaluñu ci dara Sonko ak Jomaay laaluñu ci dara. ndax wax naa leen l'exemple de ki nga xam ni moom mooy euh, Bah baajaxase Bah lu mu waxul papay Sonko amul ci àdduna ci ñaawteef lu mu waxul yaayu Sonko mën a toog ci ñaaw xeetu ñaawteef amul luy ñaaw ñaawteef ci àdduna rek Bah Diakhaté jël na ko gàcce leen ko tey bu doon Sonko règlement de compte lay def kon Bah day dee ci kaso bi parce que ay plainte plainte plainte plainte yegsi na foofu noonu ci biir kaso bi gars yi indi sénégalais yi di jubile ba tey nga dee dootoo fi génn dootoo fi génn soo ko def ne leen non kenn mënu ko toppee lii comme un légaliste ñu ne ko lu tax mu ne non dafa ànd ak lii nii bu mu koy def kañ la ñu ne avant lan moo ñëw ci diggante bi ñu ne ko euh, amnistie bi mu ne leen kon amnistie bi da ko yóbbaale va amnistie bi daa yóbbaale ki amuñu droit bàyyi ko ci kasso bu paré penam 3 mois yi mu def ni fraîchement fo wara génn la démé ba jaxé génn ay bu doon Macky Sall kasso ba ngay dé ay bu doon man la ca kaso ba ngay faato du gé ko du génn mukk parce que damay am lu ma ko la yoy su ma kenn lenn lool rek woné nak grandeur bu Sonko am ak Diomaye que ñii pour bu doon dañuy fayantoo koon baa jaxase ba léegi mi ci kaso ndax plainte yooyu la ñuy indi mais noonu lañ ko joxe dëggam mu gàññee ci loolu plainte yooyu yëpp ñu jël sànni ca mbalit ma Suzanne Camara dernier la dernier yu mu fi defoon yëpp wax ay rey nañ ñoom Fulbert Sambou rey nañ Didier Badji dagg nañ leen ak sànni nañ leen kenn toppeewu ko kenn toppeewu ko woon li mu mujjee def nii dañuy nangam dañuy nangam wax ju ñaaw da ci lañ ko yóbbee donc ñu fi jàpp yëpp ci dernièrement la amul kenn koo xam ni sa jëfum démb ak bërki démb lañ la toppee léegi loolu nag bàyyiwuñ ko de képp ku rey ngay policier ngay gendarme ngay nervi ngay militaire ak loo mun a def képp ku reylu képp ku santaane loolu mu ngi ci amnistie bi loolu la Macky Sall lem ba mu ron mu def ko projet de loi képp ku rey gendarme militaire policier complice ku reylu ñoo ñëpp mu takk leen jël bu moolaa ku sa ko ñu doon saaga ñu doon menacé ñu am ñàng yëpp dajale leen dugal leen ci enveloppe yóbbu leen assemblée def leen armi amnistie <laughs> ne man sama bos amul sens sama bos garaawul bos garaaw déedéet rey bi ñi nga dugal ci biir dafa am ay crime de sang yi ñu nga jaxase ci biir crime de sang ya fa ne yow léegi nag yooyu nag bu ñu ñëwee enveloppe bi nu muy rëy rëy rëy nii la def bu moolaa ngi nii ñu ne ah bu moolaa bi day garaawut rayu fi kenn amul crime de sang da doon xeex opposition wax na lu muy wax na amul problème kii kan la bu Antoine ñàkk jom non bii dañ koy lijjanti bii bi policier yi mu doon génne ñuy tiire dinañu wax ñan la yan policier ñoo tiire euh, Moussa Fall mi ngi nii ñoom gendarme yu mu doon tiiraloo ñii la ñii nag donc ñu ñu yóbbu ko assemblée nationale am fa majorité voté ko ñu jëlaat projet de loi boobu ubbiwaat ko ca enveloppe ba dindi ci feu yi ñuy war a dindi ne bii mun naa dem bii dañ koy voté waat bii mun naa dem donc dañuy changé bu boobaa projet de loi bi rek la ñuy changé tëggaat ko donc leer na mais day fekk nag ñu am majorité absolue à l' assemblée nationale pour ñu mun a topp ñi leen rey ak ñi leen gaañ. ak complice ak ña ca raxoon ak ñeneen ak ñeneen loolu na leen leer donc loolu boo leen defee élection yii le diset bi ngeen concentré wu ci am ñu ma am majorité absolue garantie à l' assemblée nationale bu boobaa dinañ ubbi projet de loi bi génnewaat ko dindi ci ñi nga xam ni Macky Sall da leen cee dugaloon mooy reykatu nit yeeg ñi leen ko santaaneeg ñi ko def ak leen doon financé ak li ngeen doon gis yooyu yëpp loolu kenn laala ko Sonko ak Jomaay ay légaliste lañ. bu fekkoon ay bandi lañ ni Macky Sall dañ koy génne par force jaay doole def sañ-sañ déedéet lépp ci loi lañ ko teg ak règlement lépp ci loi ak règlement ay nit yoo xam ne ñu dëggu lañ lii mooy jub jubal jubbanti voilà foofu leer na ñu avancer ci beneen point donc euh, léegi damay expliquer benn histoire ci l'affaire Adji Sarr leen lu ma buggoon wax rek mooy Adji Sarr am na jëkkër am na jëkkër bu tudd sëriñ caw sëriñ caw nag euh, wax na expliqué naa leen ko ko am doole la ci caw caw yi la bokk Thiaw laay Thiaw laay Serigne Thiaw Thiaw laay c'est un dignitaire bu multimilliardaire bu yàgg euh, ànd ak Macky jaar fu bëri caw bi nag da ko changé nee naa leen dafa amoon ay démale judiciaire ok mooy jàpp nañ ko Dubaï ci trafic d'or et de diamant jàpp nañ ko Belgique jàpp nañ ko fi nga xam ne mooy Côte ñetti ñetti dëkk yëpp tëdd na ci kaso benn bande la bu am doole am xaalis doon seme téeréer Sénégal mu def ci Serigne au lieu de Serigne caw mu def ko Serigne Thiaw wan wan naa leen euh, kii ma leen wax nag mag la euh, ponkal la voilà du xale waaw mooy Serigne Thiaw mooy sëriñ Thiaw voilà léegi moom ci boppam mu ñeenti jabar jabaram mu takk Adji Sarr def ko cinquième jabar am ñu ne lewul donc da ko doon chifaay rek di ko di ko sa di ko saa saaxe da ko may na ko sax jamaa jamaa bàgg jamaa may na ko ko may ko xaalis bu bari doon ko jeune adduna addunaam voilà léegi non foog ma utiliser fii nag portable bi loolu mooy problème bi nag quoi c'est dommage c'est vraiment dommage je voulais euh, expliquer avec des Mais je preuves quoi mais j'ai pas tout ici donc je vais vous won Aïssar, <clears throat> Sarr faut que dugg en tant que cinquième jabar mu xam loolu ci Serigne Thiaw dem nangu mariage bi ñu def mariage souffre autorité de la république yëpp niveau Antoine ñàkk jom ma nga foon ca ca mariage boobu noonu Ismaïla Madior Fall ma nga woon ca mariage boobu noonu euh, euh, euh, ministre de l'énergie bi bi paase ma nga woon ca ñu ca mariage bi ok non dañ ci gën a expliquer dinañ ci parce que parce que bagage yi ngi sama portable bi malheureusement mi ngi sama portable bi sinon am na quelques yu ma envoyé avant donc ay Aïssata Tall Sall mi ngi foon donc bu ñu demee ba nga xam ni aji Sarr comme dafa sob mu commencé nag waa ji barde mu commencé nekk ne waa ji foog mu fase jabar yi loolu la njëkk commencé liggéey waa yambarkile mu jël ay numéro jabaram jox ko aji sar aji sar nek ci hôtel yi di wo jabar waa dele saaga ay ndey rek di saga tay man nangam tan sa ndey tey nga joge fi tay nga li tay nga la di leen menacer xam nga jigen nak ak fiir ndaw si ci jabaru la bok mo nekkon 4e mo nekkon 4e fam ndaw si ndaw si nekkon 4e femme quatrième femme Serigne Thiaw Adji Sarr woo ko saago ko ay ndey ne ko nag da nga fiy jógee man dama ñëw pour uuf du ma doon cinquième soit <laughs> deux wala mais man du ma nekk cinquième cinquième moom duma ko doon woo ndaw si di ko saaga ndey di ko menacé wax ko ne ko sa jëkkër takk na ma te man munuma wujjeeg yéen ñii cinquième ak du ko doon donc ndaw si yëg loolu xaar ba jëkkër ji ñëw mu woowaat Adji Sarr Adji ko saaga ay ndey ndaw si naan day boole jëkkër ji <laughs> ca lañ ko fasee de dóor ko dóora dóora dóora dóor tuuti ñu rey tuuti ñu rey damm tànk bi toj bët ba tëral ko naroon ko rendi daa rëcc xool leen xool leen deret nii la ko waaj def ca kër ga dóor ba muy waaj a dóor ba muy waaj a dee ma indil leen leneen nii da la ko waaj a aji saar moo ko ne da nga fi jóg xolle waa ji da ko doon rendi da ko doon rendi gis ngeen waa ji da ko doon rendi waa ji nii da nii la def kii mooy quatrième femme bi nii la bu mu nee aji saar mi moo ma woo yow nan takkee aji saar rek nangam ak nangam waa nag ne da koy rey sax da léegi aji aji bu ma nee ma rey la ma rey la nii la ko aji nii la def aji saar Serigne caw nii la def wuj Adji Sarr ba avant mu ko fase dóor ko dóor ba damm tànk ba xoola bët ba bët ba la toj li certificat médical bët ba la ba toj bët ba tëral nar koo rendi damm tànk ba ñu damati ci beneen mu damm tànk ba voilà tagal leen lépp certificat médical yeeg <laughs> da ko doon rey de non Adji Sarr dëmm la dëmm fu mu dugg daal ko fu mu dugg té xoolal xam nga tànk ndaw sax ca hôpital ba la mujj mu damm tànk ba tëlal rendi bëggoon ko rendi daggate ko toj bët ba damm tànk ba jamate ko oto bu mu ko mayoon ba mu tojotoo mu sotti ci essence taal ko waaye ànd ak ngandam ponkalum nit ñu dem seen yoon ne ko boo tuddee sama du ma rendi sant fase naa la aji saar avancé donc à la place de Segem moo ci ma leen woon nii moom gis moom laa leen woon nii moom lañ doon waaja rendi moom la Serigne Thiaw doon waaj rendi ndax takk Adji Sarr kese Adji Sarr dugg cib kër dugg cib dëkk taal dëkk ba dem ca mariage kër taal ko bëggoon bëggoon rey ay wujjëm reylu ay wujjëm tuuti mu dee tuuti mu dee mais nag waa jooju moom moom xool leen nu xool leen nu xool leen nu doon def ndaw si ci da ko doon rendi xool leen da rendi voilà ak ak donc Adji Sarr kii bët bi la keuru beut bi ak yeneen amna na yeneen ñu ma yor parce que li à la dernière minute la ko envoyer ci sama whatsapp bi donc dam tanki voilà ci kër gu Adji Sarr dugg kese kër gu Adji kese kese ay tànk damm fa ay bët damm fa ay bët toj fa ay ya naraaray nit Serigne Thiaw moo def li mooy jëkkëru aji Sarr ki takk Adji Sarr nii moo jël tel numéro jabaram yëpp jox ko Adji Sarr Adji Sarr di woo benn par benn di leen saagaay ndey ne leen dama effacé wu da ngay effacé wu noonu ñu effacé Adji Sarr effacé kii jëkkër ji dem taal oto taal jël toj oto bi ba mu tojotoo ànd ak ñaari ponkal ñu génn ci oto ñu toj oto ndaw si ba mu tojotoo sotti ci essence taal ay borom dooleel nañ nañu nee naa leen bras bras droit Macky la nee naa leen prête non Macky Sall kooku musul tëdd ci kaso bi foo kooku yóbbu justice yóbbu nañ ko justice ba tàyyi musul tëdd xamul sax nu ñuy tëddee ci kaso taxaw na ñaari yoon justice musul tëdd ci kaso six mois de prison ferme mu dem yoonam Serigne Thiaw opérateur économique la opérateur économique peut noo non Macky Sall paa la mag la bokk ci dignitaire caw cawe nii laay mafia yi muy def ak yooyu yooyu ñu tëj ko ci kaso yi mu changé dindi ci turam tudd Serigne Thiaw am na tur mu dindi tur bi de des bàyyi fa Serigne Thiaw changé lépp mu changé ko pour mun a rombaat jaar ci aéroport yor passeport ba di dem ak di ñëw lii lépp ci jamono yi. Macky Sall la dara mosul dugg ci xamu sax nu duggee ci kaso mu pare Adji Sarr demati comme cinq yi quatre Adji Sarr doon quatrième mu dem ci kat troisième jabar ja ci quatrième ba Adji Sarr na ko troisième jabar ja woote menacé ko wax ko ne ko soit nga dem wala ma jëlee la sa jëkkër moom maa moom te ci samay waaw lay dox ak ci samay déet Serigne Thiaw fase ko fase kum fa bàyyi moy ko xamni mom moy premier jabaru Serigne Thiaw koku mag la maire la mère kooku mën na jur Adji yor ay domi punkal kooku la fa Adji Sarr 5e mu daane 4e ba mom lañ 4e bi lañu ñu doon waaj seyi, rey waxati mu daane 3e ba 3e ba sey mu daane 2e ba 2e ba sey Adji moy 2e femme ni la joggé de 5e place à 2e place tal keur ga boyal keur ga ñi ya, naron ray jabar ya ñi naan rey ñañ ñam fa fekk ñi gis ngeen euh, photo yi woon leen rendi leen rendi dañ def benn laaj bu gën intéressant parce que euh, j'ai pas yu ma war a génne lépp ak ojo yu ma war a teg yëpp du euh, du xajul fi lii lépp ay audio la lii lépp ay audio yi lii lépp ay ojo la lii lépp ay ojo la ok

ngay dégg booy ba ngi ci plateau yi di wax apprenti Abdou Nguer <laughs> apprenti tailleur la ca Mbàkke apprenti laa la wax de mu ne fa ñukku tailleur apprenti bu ñuy yónni damal ñëw ne ko fu ñuk dugg Ndakaaru doon benn boy town nekk ci rajo yeeg télé waaj waaj waaj waaj kodaas modaas kodaas furaas sàcc cagaju xubidaas noonu lay liggéey dóor dóor rek dóor dóor dóor 10 millions clé 10 millions nangam fii fii xaalis lay réclamé ma ngay réclamé xaalis bu nekk nii xaalis lay réclamé. vraiment ma wa xëyuñu gontuñu liggéeyuñu goruñu yattuñu ndakaar lañ toog am appartement dem Kodas Modas Sen TV nii di encaissé ay 10 millions Kodas ak luñ ci encaissé ci xaalis kenn xamul lu mu toll 10 millions clé. dix millions dafa dafa dóor benn waay nekk woowaa ji ci kodaas ñoom seen biir la rek ay ay ay lañ ay caga yu xubidaas lañ ay biccaas lañ yu dajaloo mu ne waa ji dama am na benn waay buy jaay youtube dix millions léegi pour mu ubbi ko mu defal ko mu def ko télé pour kodaas am télé waa ja dof ki le jël dix millions jox Abdou Abdou Raas Abdou Raas bu euh, apprenti tailleur ca ca Mbàkke Abdou booy Camon Town bu Dakar bu saf sàpp lekk xaalis ba ba lii Kodaas ak télé boobu am lekk ko léegi nag waa ji jox ko 4 millions mu encaissé dóor di dàqante yeneen yi léegi bu gëm la waa ji ne kële jox na ma site bi mais léegi munu ma nangul ubbi site bi tant que joxuma ko le reste loolu lay toppee waa ji nii. benn mere nag doo ay François Hélène gang boobu nag gang boobu dañuy doxaanante di tëddante di sàccante di fenante <laughs> di laalante <laughs> loolu mooy kotaas kotaas ba gis ba ñu ñamante ba seen biir fenante sàccante takkante même même si Serigne ca ca ga la takkee aji saar ca kodaas kodaas ga daal ay konaas lañ tagga bi ñu dajaloo foofu di takkante di fenante di ñamante lépp nga fa nag nga dégg kii ñam na François Hélène Gaye kenn ah mooy François xanaa amul jëkkër ñu ne ah xaalisam la doon lekk nga dégg ni Abdou Rass lekk na kële 10 millions ke kele baa ngi <laughs> maanaam ay gam gàngooru dëmm yu dajaloo la woon di lekk lekkante lekkante ñamante laalante tëdd di nalaw bu yeewoo génn sonko sonko sonko silip sonko pantalon sonko silip sonko nangam sonko sonko sonko ñu di enquête kese nii ñu nekk di lekkante mooy Françoise Hélène Gaye ak Adji Sarr ak euh, euh, euh, ndaw ndaw se Mati trois pom ak ñu Abdou <laughs> nii nii la ñuy doxale nii mais dinañ gën a ñëw ci live bi ak ni may ñàkkale fayda ni ma koy woo muy bañ jël ba koy envoyé message muy bii di noppi yàlla xam na ni mënoon naa ko def ni ko aale def wala ma woo jël aji dugal ko ci appel bi mais yooyu yëpp du ko def. dañuy santaase. bu guddee la ma dugal aji ci appel bi ngeen waxtaan. rabbi bu la di nga coupé de. di a coupé sa téléphone de yow yaay doomu xaraam dëgg-dëgg yaay imbécile yow yaay doomu xaj yaay imbécile aji saar takk yow yow yow yow yaay kat yow lu ma la bëgg a wax ko yow yaay ñàkk ngor yow rusoo sa doom yi koo xamante ne adduna bi yëpp wàcc nañ ko bu dee nag moo tax kii mooy ndaw suñu waaroon kii mooy ndaw suñu rëcc rey ndaw suñu waaroon rey rendi damm tànk ba toj bët ba mooy wax ni naa Adji Sarr nga ngay ngay takk xaw wala <laughs> ca konaas ga la de ca konaas ga ca konaas ga ca konaas waaw vidange vidange force ga ñoom ne ñu ngi ni laalante takkante fenante dóorante kese dóorante ci xaalis dóorante ñu ngi ni voilà alxuraanu karim duur nga ndax vidéo yëpp trans man yoruma benn vidéo vidéo yëpp yónnee naa ko seen vidéo vidéo yëpp laa jël jël naa lépp yónnee naa ko samay mag ñu nga Angleterre man danga may rey noonu ci erreur rek defal ku lu la yebalal ku la neex même buñ ma reyee affaire bi dina génn ndax samay mag lu ma dal barke alxuraan dina génn waaw mais nag doomu xaraam amoo lenn looy def bu ma neexoon mel ni yow damay jël lépp tasaare ko ci ànd ci ci àdduna bi mais du ko def dinaa génn Sénégal bés bu ma génnee Sénégal dinaa katt ndey lépp ci internet bi yow sa lépp dina feeñ yàgg Adji lépp dinaa ko génnee lépp li ma yor lépp dinaa ko génnee waaw donc kii moom ndeysaan euh, victime la Adji Sarr ko fa jëlee tuuti ñu rey ko yàlla ko sauvé waaw yëpp nag ca kodaas gala nga xam rek donc ñii nag il faut Sonko traqué leen il faut Sonko traqué ñii dañoo fenalaate sosalaate doxaanante seen biir laalante ñamante dóorante naxante sàccante di ñu takkante seen biir ay ca ca yëpp ca konaas ga la ñu am ay bàjjan ñun ñu gars yi sonaloon fi de bàjjanu Adji Sarr yi tantay aji saar ya umpaañu aji saar ya tonton aji saar ya ñi ku nekk ta ñi naan tanta yaa ngi nii bàjjan yaa ngi nii mais ana ana bàjjan ya xanaa dañoo faatu ñii ñëpp dañ leen war a génne ñii ñëpp dañ leen war a génne bàjjan aji saar ya ana ya ana nijaay aji tonton aji saar ya ana tonton xaw ma lan tonton si moo xaw ma tonton bàjjan nangam umpaañ yaa ana ñu ñi ñi pour ñoom ñii dañuy daw nii <laughs> pour ñoom rëcc nañ nii il n'a rien compris ñàkk glace dem dugal ma ci ay détails <laughs> xaw ma kan ba Abdou Nguer ci àdduna xaw ma kuy Abdou Nguer waaye jëf jii nii barke alxuraanu karim ne du ma def lu bàyyi naa la ak yàlla yàlla na ma yàlla àtte ak yow. donc daal intention bu ma ci amoon moom waa Kodas ca ñamante ga ca laalante ga ca takkante ga takkante nañ ñamante nañ dóorante nañ ay xaalis ñii am 10 millions ñii 15 ñii dóor kii ñii dóor kee. gàngoor mafia la ñu woon gàngoor mafia mm. donc ñii ñoo newoon ci ginnaaw Adji Sarr ñii ñoo nekkoon ci ginnaaw Adji mar mafia partout lépp a nga fa woon ñii ñoo newoon ci réew ma di ko lëmbe Macky Sall dof bi di rey rek di rey ay ay gor di rey ak tiiñalaate ñi nekk ci ñi nekk seen groupe ñoom di ñamante ka fenante tonton tonton Adji Sarr yi bàjjanu Adji Sarr yi tantay Adji Sarr yi ku nekk génn maay tantaam maay bàjjanam maa bokk yaayam mu ci peccor goom maanaam ñoom ñëpp anañu anañu tey nee nañ yoo dugg nañ seen pax <laughs> pour ñoom fàtte nañ leen pour leen de <laughs> d'accord ñoom ñëpp kañe dugg nañ seen tax yi toog ñoom ñëpp nañ doo ko sàcc lépp ñu ak luñ lekk lépp ñoom ñu bëgg noppi ne salaw ñu nañ mel ni ñu ñu leen fàtte nañ mel ni ñu leen fàtte rek <laughs> jeu de cache-cache la ñu ngi jaay ni kañe lañ fi yàq yëpp duggaat nañ seen tax ñoom ñëpp toog voilà d'accord Aïcha may wax xaw ma nu mu tudd xaw ma Abdou Nguer xaw ma Abdou Nguer naa man aji loo ko wax tooñ nga ko ajaloo ko wax tooñ nga ko adduna bi bés bu yeggee takk yow yow kii moo kattan yow li muy war di wax yëpp yow amoo kenn koy takk ku dul takk suuf ku dul aji saar caga amoo koy takk ku dul ku caga yow yaa dëgg sa ndey yow lii nii li ngeen def ci adduna bi yëpp lépp di lépp li ma yor lépp dina génn bu dee moo tax ngay fi mu toll nekkatoo ci jàmm nekkatoo ci salaam procureur bu la bu ñu la tëjee six mois ferme si nan ngeen nekkee ñu tëj la def li nga def yàq sama bët yàq sama tànk yàq sama àdduna yàq sama alal yàq sama lépp ba pare di wër di ci àdduna man man man mosuma man dama meen damay gént ci sama àdduna fuñ la taxawal bu buñ la tëjee seen si mois ferme bocc la nga dem nga yóbbu samay alal yóbbu samay takkaay yóbbu sama lépp barke alxuraanu karim génn naa mooy sa àdduna seen àdduna sax yàqu na parce que yow ak APR yéen ñëpp APR yéen ñëpp waxuma la Adji Sarr ak yow rek waxuma la vidéo yi vidéo yi nga xuma ko maa la ko envoyé maa tey mu ngi ci man mu ngi ci gis nga di ma da ko yónnee noonu laa ko yónnee samay mag yëpp donc kooku dignitaire APR la nee naa leen prête non la

sosalante sàccante naxante dóorante